لا إله إلا الله
إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunaam bés penc ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ñu takkoo ragal yàlla ci fu ñu mënti nekk te ñu xam ne ci loolu rek dañu mën a amee teraanga àdduna ak àllaaxira doomu ndey mbokk jullit nii comme ni nga ko waxee woon ci àjjuma yi passé dañuy taxaw ci programme boo xam ne mooy spécial waajal koor nga xamante ne buñ ci taxawee dina leer suñu bopp balaa ñuy dugg ci koor te mooy gën ñu bàyyi ba yegg si koor gi di jël li nga xamante ne mooy programme koor di ko def comme ñenn ni ñu koy defee àjjuma yi passé ñu ngi leeraloon yenn ci yi nga xamante ne yàlla moom la ñu waajalee li nga xam ne moom mooy koor ci saar bi surtout baqara comme ni ñu ko waxee woon waaye balay loolu dañuy continuer waat di ñaaxaat suñu bopp di leen ñaax ci weer bi ñu nekk ñu xam ne ñu ngi ci weeru saxabaan di weer boo xam ne weeru woor la weer boo xam ne nit ki ci la war a waajalee boppam tàggat boppam ba nga xam ne buy dugg ci weeru koor daf ciy dugg ci ak ngëm yàlla bu mat sëkk weer la boo xam ne bu teruwaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nekkoon yitteem dëgg mooy dafay woor li nga xamante ne mooy weer bi yépp ci saxabaan bi ñëw na ci xadis boo xam ne suñu yaay Aïcha moom moo ko solo waaye ñëw na tam ci beneen xadis boo xam ne daan na woor li nga xamante ne mooy nisfu shahaban bu ñu nee nisf nag nekkul le quinze bi mooy nifs bu ñu nee nifs mooy xaaju weer bi maanaam tàmbali ci le premier ba le quinze da ko doon woor le quinze ba jëm weer bi di feeñ pour ñu dugg ci koor gi mu noppalu ko ngir waajal li nga xam ne moom mooy weeru koor gi weer bi mooy weer bi nga xamante ne yàlla ci lay yëkkati jëfu jaam yi mu wuteeg loolu ñenn ñi li ñuy wax ndax ñenn ñi da ngay dégg ñu naan ci lay yàlla di dogal mbir yi déedéet ba ñu jàpp sax mooy le 15 bi ci guddi gi yoog wala ci boobu lañ koy lañ koy kii ma nga gis dañuy digal ñëpp nañu woor ci bésu le 15 bi ndax yàlla ci lay dogal mbiri déedéet yàlla mbiri mu ngi koy dogal ci guddi laylatul xadr ñu ngi koy jàng ci inna anzalnaahu fi laylatil xadr mooy tanazzalu malaikatu wa ruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr yàlla ci guddi laylatul xadr lay dogal bépp mbir waaye nag ci weer bi ñu toll muy saxabaan weer bi lay yàlla di yëkkati jëf yépp jëfu jaam bi mu doon bu mu doon def ci li nga xam ne mooy at bi comme ni ñu ko xamee ci lundi yi ak jeudi yi yàlla day yëkkati li nga xam ne mooy jëfu jaam yi moo tax yoon saa sam daan woor lundi yi ak jeudi yi ngir mujjantelu jëfam ci yàlla di yëkkati mu nekk li nga xam ne mooy koor ndax yàlla dafa bëgg woor moo tax weer bi bu ñëwaan mu sàlloo woon di woor ndax jëf jëfam yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati yaakaar naa loolu leer na yàlla nag bu boobaat ñëpp daf leen di jéggal seen bàkkaar ñëpp lay jéggal ba mu des ñii mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo xuloo dañu romb ñetti fan mooy dañoo dogoo ñu romb ñetti fan foofu ko fa génn àdduna sax boo moytul du dugg àjjana bu ñu nee xuloo nag mooy dogoo ci seen bànneexu bakken jullit buy jàpp dafay jàpp te yàlla tax buy bàyyi itam day bàyyi te yàlla tax ak koo xam ne dafay bokkaale ak koo xam ne dafay bokkaale yàlla ñii duñ leen jéggal ñaar ñu xuloo yàlla danaan tegal foofu seen dossier duñ ko xool ba keroog ñuy juboo chaque jeudi ak chaque lundi ak weer bii di saabaan kon nañ ci bàyyi xel ñu tàppaat xol yi rafetal ko balaa ñuy dugg ci koor xëy na sax aay bi ñuy jël ci àjjuma bii di ñëw ci waajal koor sax ci ci loolu lay wax ci tooñ fayu àjjuma bi passé ñu ngi jëloon li nga xamante ne moom mooy ñetti aaya comme ni nga ko waxee baqara yàlla ci la farataal li nga xam ne mooy koor mooy ñaareelu saar ci kaamil bi waaye bi muy farataal koor dafa woo ñu gëm yàlla ne yaa ayyuha allazina amanu yaa ayyuha boobu mu woote nag woote na ko treize fois si saar bi bi mu farataal koor moo nekk septième position waaye sii su njëkk yi dafa lay waajal li nga xam ne mooy koor gi bu ñëwee septième bi daal di lay dugal ci koor mu am yeneen siis yoo xam ne ñoo topp ci koor gi yépp yaa ayyuha la woote yooyu tamit da lay préparer boo génnee ci koor bi ban comportement nga war a am kon ñu jëloon ñett si nga xam ne mooy ñett yi passé nii dañ ciy jaar ndax répétition pédagogie la bu njëkk bi moo nekkoon yaa ayyuhan naas yàlla woon ni ñëpp ubudu rabbakum allazi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla woon ni ñëpp ne leen na ngeen jaamu seen borom ñu xam ne yàlla la ñu war a jaamu lan moo tax ñu war koo jaamu parce que moom mooy ki bind mu ne allazi xalaqakum moom moo leen bind walladina min qablikum moo bind di leen jiitu ngir lan laallakum tattaqun ngir ngeen ragal yàlla kon bind bi ñu yàlla bind objectif bi moom mooy ngir nañ ko ragal mu bokk ci weeru koor moyen boo xam ne nit ki dafay am loo xam ne mooy ragal yàlla comme ni ko yàlla waxee kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun farataal na si ñun koor farataal na ko si ñu ñu jiitu ngir lan ngir ñu am ragal yàlla kon koor moyen la boo xam ne moo ñuy permettre suñu dund bi am sens ndax ci la ñu mën a jëlee li nga xam mooy ragal yàlla bi tax yàlla wax fii moo tax mu binduñu muy aaya bu njëkk ñaareelu aaya bi yàlla indiwaat beneen mu ne yaa ayuha allazina amanu laa taqulu raayina wa qulu nzurna wasmau leeraloon nañ ko mooy yéeféeri juif yi ñoom dañ naan faral di wax raayina mais saaga lañ ci jublu woon ci yonent bi ndax raayina ci langue hébreu saaga la waaye ci langue arabe benn moo bi la ñoo nuroo ni ñu koy waxee mais ci langue hébreu saaga lay firi waaye ci langue arabe moom mooy firi yàlla maanaam unzurna maanaam raayina mooy favoriser ñu yàlla favoriser ñu mooy bu ñu nee favori mooy nañu favoriser ak par rapport ak leneen lu mu bind jullit ñi bu ñu ko doon wax loolu dañ doon ko wax yonent bi jublu ci favoriser ñu waaye juif yi bu ñu ko doon wax dañ ci doon jublu saaga comme yàlla nag moo xam ne nekk ci xol yi mu tere leen ne leen bu leen waxati raayna mais da leen wax unzurna yàlla xool ñu wasmaaw te nga déglu ñu loolu lu ñu ciy jàng ci koor gi mooy nit ki na fexe làmmiñam bii bu mu ci wax lu bon yàlla woo na ñu gëm yàlla ne leen bàyyi leen di wax lu bon donte baat bi sax ci ñenn ñi day firi lu baax waaye comme am na loo xam ne ci yéeféer yi mu ngi koy niru saaga rek yàlla tere ñu ko moo tax yàlla bëggul ñu niroog dara yéeféer ba suñu karaw yi bëggul ñu niroog yéeféer suñu sikkim yi lu tax mu ne bàyyi leen sikkim yi di wat moustache yi mooy bëggul ñu niroog juif yi bëggul ñu niroog chrétien yi mu ne ndax juif yi ñoom dañuy bàyyi moustache yi ak sikkim bi yëpp mu wàcc bu fekkente ne chrétien yi la ñoom dañuy wat lépp dañuy wat moustache bi ak sikkim yi mu ne kon yéen jullit ñi dee leen wàññi li nga xam ne mooy moustache yi naanukaay yi waaye dee leen bàyyi seen sikkim ngir lan ngeen bañ a niroog ñoom kon ku bëggul nga niroog ñii même ci karaw kon du bëgg nga niroog ñoom ci dara ba rawatina sax ci ay jaamu yàlla kon waruñu leen topp ci seen i feet waruñu leen topp ci seen i ci seen i mbir nañ leen bàyyi ak seen i mbir ñun ñu nekk suñuy mbir lakum diinukum waliya diin julit ak mbokku julitam waruñu ko waxante du ay tarixa moo tax ñu koy waxante déedéet waaye warul tax ñu koy wax ñun jullit ñi buñ demee ba di ko wax nag na doon ñun ak li nga xamante ne moom mooy juif yi ak chrétiens yi nañu am dañ téye seen mbir ñun ñu téye suñu mbir kon lii mooy aaya bu aaya ñaareel bi mooy nit ki yar làmmiñam ci weeru koor gi ba bu mu ci génnee lu ñaaw ñetteelu aaya bi yàlla wax yaa ayuhan naas yaa ayyuhal lazina amanu ba léegi istainu bi sabri wa sola yéen ñi gëm da ngeen ngooy ci li nga xam ne moom mooy julli ak muñ da ngeen mooy ngoñ ci muñ ak julli ndax inna allaha ma sabri yàlla mu ngi ànd ak ñi muñ lii lan lañ ciy jàng ci weeru koor gi mooy weeru koor gi nit ki daf ci war a tàggat boppam ci muñ ndax yàlla mu ngi ànd ak ñuy muñ xaaju koor mooy muñ xaaju koor mooy muñ nit ki pour mu mën a woor dëgg su mënul muñ du ko mën a def ñaareel bi mooy taxawal julli mooy nit ki bu wooree ngalluwaay del julli bul mel ni sama mbokk séeréer yi nga xam ne bu ñu xëddee ci la ñuy nelaw ba keroog ñu naan léegi ndogu jot ñuy doog a yeewu nga xam ne dañuy xëdd tisbaar romb leen fa am na sax ñoo xam ne dañuy xëdd rek tëdd duñ julli suba tisbaar romb leen fa tàkkusaan romb leen fa ba léegi ndogu jot ci la ñuy jug dem di para para dem jàkka ja lu leen di yóbbu jàkka jam parce que jàkka ja am na ay ndogu moo tax am na ñu koy def kon loolu du koor koor nit ki buy woor na woor parce que dafa war a woor yàlla moo ko sant waaye bépp jaamu yàlla boo xam ne ànd naa koor gi bu mu ci bàyyi dara rawatina li nga xam ne mooy julli kon lii mooy ñetti aaya yi nga xam ne jàngoon nañ ko ci àjjuma bi passé tey ñu fas yéene jël ñaar nga xamante ne bu ñu jëlee ñaar nañ am juróom mu des benn incha allah àjjuma biir ñëw ñu dugg ko ak yenn xadis yi nga xamante ne ni ahadis yi nga xam ne yoon saa salaam préparé nañ ci li nga xam ne mooy koor bi njëkk tey bi ñuy jël yàlla mu ngi woo nit ñëpp mu ne yaa ayuha nnaas yéen nit ñi kulu mimma fil ardi xalaalan tayyiba wala tattabiu xutuwaati shaytaan innahu lakum aduwun mubin yàlla woo na nit ñëpp mu ne kulu lekk leen mimma fil ardi ci kaw suuf xalaalan tayyiba na ngeen lekk lu dagan waaye na nekk loo xam ne lu teey wala tattabiu xutuwaati seytaan bu leen topp seytaane ndax innahum lakum kum aduwun mubin seytaane seen noonu la boo xam ne bu ñu leen déclaré la kon fii lu ñuy jàng lii ci préparé weeru koor mooy yàlla mu ngi dugg si ñun ba di ñu préparé li ñu war a lekk nit ki buy dugg ci koor lu mu war a lekk da koo war a xool yàlla mu ne yaa ayuhan naas ee yéen nit ñi kulu lekk leen mimma fil ardi xalaalan tayyiba lekk leen ci kaw suuf loo xamante ne lu xalaal la dafa am xalaal am xaraam julit dafa am loo xam ne dafa dagan ci moom mu lekk ko am loo xam ne dafa xaraam ci moom mu lekk ko dinañ ko leeral ci ñaareelu ñaareelu xutba bi buñ toogee jugaat lan moo xaraam ci moom kon su ko defee julit gi li muy lekk dafa war a dagan ci moom mu moytu loo xam ne lu xaraam la waaye tamit li muy lekk dafa war a nekk loo xam ne lu teey la mbir mun na dagan te fekk teeyul ci yow par exemple nit ki am na feebar boo xam ne bu naanee bisaab day génnee ndoxu système par exemple wala mu lekk yàpp day génnee na da koy def nangam jullit bi da ko war a moytu loolu du dagan ci moom moomu mais mun na dagan ci beneen jullit boo xam ne bu ko lekkee du ci am benn problème bépp alimentation boo xam ne nit ki su ko lekkee da koy jural problème du dagan ci moom parce que yàlla dafa ne bu leen rey seen bopp wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp kon nit ki warul xaru di jël ay substances yoo xam ne da koy jël mu koy indil ay jafe-jafe bu boo moytul sax xëy na génn àdduna mun na ko ci fekk kon jullit bi buy lekk na xool li nga xam ne mooy lu lu dagan la te moytu tamit li nga xamante ne lu teewul la ci moom te mu moytu li nga xam ne mooy seytaane parce que moo koy xiirtal ci yooyu ndax seytaane suñu noonu la bëggaluñ jàmm yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla xiwur ci boppam aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم دوم ndayi mbokk jullit ni yàlla mu ngi woo nit ñi ci ñu xool li ñuy lekk li ñuy lekk na doon loo xamante ne lu lu lu lu dagan la ñu moytu lu xaraam buñ nee nag lu dagan mooy li dagan xam ne xam nañ ko alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyinun li nga xamante ne ni moom mooy lu lu dagan leer na nañ xam nañ ko lii la xam ne mooy lu xaraam la xam nañ ko kon li xaraam nañ ko moytu buñ ko jegee sax ba koy lekk waaye nañ lekk li nga xam ne dagan na ci ñun te ñu moytu li nga xamante ne moom mooy seytaane ndax seytaane suñu noonu la buñ déclaré moom seytaane si boppam innama ya'murukum bis suu wal faxsha moom da ci ñaawteef rek la ñuy xiirtal moom seytaane ak bàkkaar waan taqulu ala allahi ma la taalamun ba pare dañu dañu wax ci yàlla loo xamante ne amu ci benn xam-xam moom seytaan dafay ñëw duñu nax dañu jax-jaxal naan ñu pourtant mu nga def nangam mu nga def nangam amaana boo ko defoon yàlla nangam te fekk loolu muy wax amu ci benn xam-xam seytaane nag mun na nekk nit mun na nekk jinne dafa am shayaatinu ins wal jinn am na nit koo xam ne tey si sa koor dina la découragé ba bul woor wala sa biir koor dina def ay mbir yoo xamante ne moo lay yàqal sax far sa koor kooku shayaatinu ins lay nekk day nekk seytaane boo xam ne seytaane nit nit lay doon comme seytaane jinne tam am na waaye ñun weeru koor yàlla moom moo ñu dimbali nootal ñu li nga xam ne mooy seytaane yu féttéerlu yi du seytaane yëpp nag la ñuy tënk am na seytaane yoo xam ne dañ leen di bàyyi mooy seytaane yu néew doole yi yi nga xamante ne ñoom booy julli dañuy ñëw jax-jaxal la sa julli di la yàqal wala affaire yooyu mais seytaane yi am doole yi nga xam ne ñoom dañoo féttéeru nag ñoom ñëpp dañ leen di tënk moo tax nga gis weeru koor ku mën a woon dem jàkk gis muy dem jàkk jaamu yàlla yi diisoon ci yow yëpp da ngay dem benn instant gis ne dafay oyof ci yow parce que lan moo tax mooy yàlla daf la tënkal li nga xam ne mooy seytaane yooyu nga xamante ne ñoom ñoo féttéerlu nga xam ne yàq rek la ñuy tax a jug kon nañ leen moytandiku ñoom seytaane yi bu fekkee bu nit bi la moom duñ ko tënk day ànd ak ñun nga gis weeru koor day jot au lieu mu woor ànd ak yow mais da nga gis affaire yu yàq koor rek lay def sa kanam di la yóbbaale mun na mun na bañ a woor di la décourager mun ngay woor mu jël yu neex di ko lekk sa kanam wala ngay woor muy def ay mbir yoo xamante ne da lay wóor ne boo ci concentré wu bàyyi xel mun na la génnee ci li nga xam ne mooy concentration bi nga amoon ci koor kon yii dañ ko war a moytandiku ndax jëmeewuñu fenn fudul li nga xam ne mooy ñaawteef ak li nga xam ne mooy bàkkaar ba pare dañu wax ci yàlla loo xamante ne amuñu ci benn xam-xam ñaareelu aaya bi yàlla wax ci ba léegi muy woote bee nit ñi la woowoon nag parce que nit ñi moom dañoo war a bàyyi lu xaraam nit ñëpp dañoo war a bàyyi lu xaraam bii nag ñi gëm yàlla kese la woo parce que li muy wax ñoom la concerne il faut nga gëm ko mun koo def mu ne yaa ayyuhal lazina amanu ee yéen ñi gëm kulu min tayyibatin ma razaqnakum lekk leen li nga xam ne moom moo teey te yàlla wërsëgal leen ko washkuru lillahi in kuntum iyaahu taabudun lekk leen li teey ba pare yàlla toftal ci wërsëg mooy nit ki buy fàggu na fàggu ci lu dagan nit ki mun na am xaalis dem jënd ginaar pourtant ginaar teey na waaye ni mu ko fàggoo moo baaxul ba ginaar boobu day nekk loo xam ne lu xaraam lay nekk ci moom parce que fi mu ko fàggoo baaxul kon nit ki na mooy su di woor di jege pari foot di jege ñoom exhibet ak yeneen ak ak yeneen ak yeneen parce que yooyu mu fay jëlee yu xaraam la te boo moytul da koy lekk ndogoo ko ndogoo ko ak waa këram te bu waa mu ngi lekk safara du ko lekkloo waa këram rawatina mu nekk ci weeru koor teg ci bu dul weeru koor sax dafa xaraam rawatina nit ki nekk ci weeru koor kon nit ki buy lekk na lekk loo xamante ni lu teel a ci moom mooy loo xam ne fu mu koy fàggoo day ñaq comme lu mel ni li ngeen def xëy si liggéey ñaq ñu fay la nga xam ne lii sa xaalis yaa ko ñaq mu leew la dong benn am nga jaamu yàlla liggéey waaye am nga jaamu yàlla li ngay jënd tamit dagan na te yaa ngi koy lekk yaa ngi koy jox li nga xam ne moom mooy sa njaboot kon lii nit ki na ko bàyyi xel moo tax yàlla teel ñoo prévenir te ku gëm moo ko mën a def nag boo gisee fii woowul nit ñëpp daf ko segg génnee ñi gëm ki gëm moom mooy mën a xool ne lii dagan na ci man maanaam du riba lii kat baax na ci man naa ko moytu naa ko naa ko naa ko naa ko jëfandikoo lii baaxul ci man naa ko moytu ki gëm moo mën a seetantal loolu mu wóor na ne alal bi daganul nga am ngoru bàyyi ko fi parce que daganul moom ma ko dama ko fi war a teg jurit noonu lay doxee te ngëm moo koy doole nit ba mu mën a moytu loolu moo tax yàlla woo ñi gëm tere leen lii mu bokk ak aaya bi nga xam ne moo jiitu nga xam ne yaa ayyuhan naas la woote mu teg ci ne waskuru lillah na ngeen sant yàlla in kuntum iyaahu taabudu mu fekkente ne yàlla ngeen jaam yàlla mi la jox xel jox la kàttan nga mën a liggéey ñaq jëriñu nge- ngan la waaye bu la wërsëgalee soo lekkee ba pare gërëm ko nga sant ko su ko defee moom yàlla mu dollil la mu ne léegi fii aaya bi ba léegi mu koy yeggali fii nag la ñu leeralalee lan mooy li nga xam ne moom mooy li xaraam feelu ko ci aaya bu njëkk yaa ayyuhan naas mu ne innama xarama aleykumul maytata xaraam na ci yéen ngeen lekk li ngeen xam ne mooy médd médd dafa xaraam nit ki lekk ko wa dama deret nga rendi xar bi deret boobu génn dafa xaraam nit ki lekk ko tey ñiy def ñaawteef ngay gis ñooy jël ñooy def deret boobu parce que sobe la nit ki war koo lekk dafa xaraam ci jullit gi mu lekk li nga xam ne mooy deret wa dama wal xamal xinziir ak yàpp mbaam xaraamul dafa xaraam jullit lekk ko jullit warul lekk li nga xam ne mooy yàpp mbaam mooy wal xamal xinziir wama uxilla wama uxilla bihi li gayrillah ak lépp loo xam ne rendi nañ ko te tudd ñu si yàlla ba mu des nag koo xamante ne contrainte moom moo nekk ci moom gis nga yàlla nu mu bëree yërmande mu ne fa mit turra xayra baaxin wala aadin fala isma alay képp koo xam ne dafa nekk ci contrainte maanaam maa ngi dem voyage ñëw naa ci àll bi lekk bi ma yoroon jeex na amatuma lu ma lekk te bu ma lekkul dee gis medd lekkal bu ma lekkul dee gis yu mu la tere fii nga xam ne dafa xaraam wax na la ko te bu ma ko jëfandikoowul du ma mën a dem mu ne la lekkal waaye bu ci abusé mooy bu ci lekk ba suur lekk ci rek loo xamante ne nii dina la mën a tenir ba nga yegg fi nga xam ne foofu nga bëgg a dem te boo fa yeggee jàppal ne li li liñ la mayoon nga lekk ko xaraamaat na ci yow mu ngi mel ne nit ki amul amul ndox ndox bu mu jàppoo wala am na feebar bu nekk ci moom boo xam ne mënul jàpp boobaa day tiim mais loolu bés bu ko wàccee rek mooy tiim bi wàcc na ko force dafay delluwaat ci li nga xam ne mooy jàpp bi kon li la xaraam ci yow ci wàllu lekk mu lu mel ni mid nga xam ne moo fi sës lekkal tuuti rek loo xam ne mën na la tenir waaye bés bu mbir delluwaatee ci normal nga xamante ne mbir dafay xaramaat ci yow nga delluwaat ci kon lii lañu yàlla xamal ne lii moom mooy li xaraam ci ñun benn bu njëkk moom mooy li nga xamante ne nii moom mooy médd ñaareel bi mooy deret ñetteel bi mooy li nga xamante ne moom mooy yàpp mbaam dafa nekk loo xamante ne nii lu xaraam la ci ñun nañ ko moy nañ ko moytandiku inna allaha gafuru rahim ñu xam ne yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kiy jéggale waaye moom mooy kiy yërëme yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla may ñu am taxawaay boo xamante ne dinañ taxaw ci ay santaaneem waaye mooy suñu nga xam ne moom mooy tereem ndax loolu mooy ragal yàlla ñu koy dénk suñu bopp di leen ko dénk rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin rabbana admilna nurana mubina واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله